nag Moustapha hmm. yéen ñi ne ci campagne yàlla leen yàlla jàppale kenn ku nekk nga àndal yàlla moo xam hmm. bu dee ku bëgg defar réew mi te yàlla rek tax ko réew mi rek tax koo jóg yàlla ko yàlla may ndam hmm. bu dee koo xam ne day nax askan wi yàlla mu am ndam bu dee ku bëgg réew mi te réew rek tax koo jóg ak gox bu mu rek tax koo jóg ak ku mën a doon yàlla am ndam bu dee koo xam li muy wax ak li muy jëf du dëgg gëmu ko ku mën a doon yalla mu am ndam loolu moom noonu lay jàpp léegi bu ko defee fi nga doon tëje ci foo doon waxat sax loo doon waxat sama man kay maa ngi woon ci campagne ba. waaw ah, ah, ah, ci campagne boobu. léegi euh, bu fekkee ni ci misaal euh, kii nu mu tëddi lu euh, ma doon waxat sax ci ci ca ca tëjte la yaakaar ne woon ci tëjte la sax. waaw ndax waxtu dafa dafa dafa jëm ci xoj. xam na ndax dama bëgg bu ñu demee ba cinquante rek. juróomi minutes yi ah, ndax garab yi ah, ah. bari na ñu may laaj dañ wax su ko su ko defee ñu daat koy ñu daat koy yaatal ndax waxtu day daal di jëm xoj mm. xam naa ci juróom benn minute rek man daal li ma bëggoon mooy askan wi askan wi lan nga leen di wax maanaam kenn ku ci nekk kum kum neex man ngaa topp ku la neex te bañ caa indi fitna waaye nag kenn ku ci nekk boo tollee ca ca ca vote ba maanaam nañ ko war a doxee nga xam ne ah. bañ a indi benn fitna ah. ndax ndax am na ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla bëgguñu fitna liñ bëgg mooy dem voté daal di delluwaat seeni kër toog xaar ay résultat hmm. yàllaay joxe ndam kum ko jox ñu waaw xam nga Moustapha loolu nga wax moom mooy lu wér mooy mooy dëgg hmm. yàlla moom mooy joxe ndam ak jàmm moom day sabab rek a yàllaay joxe ndam hmm. te kenn ko def réer boo seen ki nga ànd ay am ndam moom noonu yàlla doxale ad koo seen waaye li li li li bi mooy nañu moytu wiyalaas. Hmm. maam maam maam. coow yeeg xeex yeeg coow yu bari yeeg xam nga talaata bi jaar sama soo yëpp ci loolu laa ko wax. Hmm. in jaaku faasixun bi nabain fatabayyanu. Hmm. wax naa ko ba tey aaya boobu xanaa war naa bu doon sàppee di sàppe. doon alxuraan du sàppe. bu nit ñi waxee ci lu wax loo xam ci nangam ak nangam ak nangam wérifeel ba ñuy wax dëgg la wala liy waxee ko far la wala déet loolu daa mat a bàyyi xel. ndax am na ñoo xam bu ñu faree du xool ci li sëkk. te loolu baaxul. ànd ak Moustapha Thiam tax boo gisee sikk ci moom doo ko wax wala sikk sa doo doo fexe ba man koo euh, régler te kenn du xam kenn du kii nga régler ko ba kenn du xam xam nga loolu am am ñu def loolu nga xam ne nga am sikk si ci niwaay di nga fexe ba kenn du du andi coow daal doo di coow fi te mm-hmm. sikk sa mm-hmm. di mm-hmm. am na ñoo xam ne bu nu gisee ci dara dañ koy jéem a def sikk soo xam ne mën naa dem ba yaatu ba andi loraange te am na yoo xam jëru ko ndax Moustapha Thiam am na comme àndal diw am na ko mu àndal kay am na ko mu àndal am na ko mu mhm. ñun ñëpp bu la 17 bu ñu defee élection ba ñëw. Mhm. ñooy bokkaat le 17 plutôt waaw ah, le 17 waaw ah, le 17 mhm, ñooy bokkaat fu ñu toog. kii gañe. gañewul dem Mali. gañewul dem Gambie gañewul dem Guinée. Sénégal gi lay toog Sénégal gi lay toog ki ñu gañe. moom itam demul Mali demul Guinée demul Gambie Sénégal gi lay toog. kon Sénégal moo gañe kenn pertu. ku mën a gañe rek Sénégal a gañe kenn pertu. loolu moom mooy dëgg. waaye nag. Uh-huh. man moom sama dëgg-dëgg ak li ma gëm toujours moom laay wax. Uh-huh. li ma gëm mooy pouvoir bii fi nekk. Uh-huh. yabu ñu wax ma lu waaye ku bëgg réew mi dox. fexeel ba jàppale ñu am majorité. majorité fële ci assemblée. su ñu amee majorité assemblée. yéene moom seenum réew. kenn du leen gàllankoor. du ñu bëgg a dogal dara ñeneen du fi amee du ñu bëgg a naaw ñu amee. bu ñu ko deful nag. ba. ñii nga xam ne ñoo yàqante der yàqkat yi waxkat yu bon yii yii nga xam ni ña nga bokk ca nguuru Senghor laay wàdd Macky Sall ñëw yàqal leen lu bari xamatun fu ñu jëm jaaxle ah ñooñu bu ngeen jëlee seen bopp tay leen ko jox leen seen bopp wallaahi asim da ngeen ko réccu ak lu leen mën di wax nag laa ak lu leen mën di wax ndax gis nan fii ñoo xam ne fu dul seen wax ci ñaaw ji ñu wax li ma la wax léegi rek dañoo bëgg la ngaa mi ci Pastef Pastef lànk ñu mujj ni na xaar nag kon lu ñu xamant ci wax ju ñaaw lu ñu xamant ci wax ju bon nañ leen ko wax xam nga léegi bi nga tuddee Aboubacar na daal musuma xam ci wax ju ñaaw mhm. musuma koo xam ci moom te yàlla rek tax may wax mhm. musuma koo xam mhm. su ma ko xamal dàq ko la te kon yow mii toog du teem wax ko xaadim sa waa di ma dégg te te bokk ci Aboubacar ndaw du teem wax ko ndax xaw ma xaw ma ko juruma jënd ma juruma ko jënd ma ko te man dëgg kenn moomu ko yàllaa ko bu ma gisante Aboubacar na loolu daa koy wax ñëpp di ko dégg waaw ah, man noonu laay dundee noonu laa ma yàlla bindee li nga kon ñi nga xam ne tey ci misaal yàlla moo leen teg ci bopp réew mii ñu wàttee leen ba ñu gañe hmm. nañu leen may majorité ñu am fële majorité gañe assemblée mën a liggéey réew mi ñu ànd dox hmm. buñu leen gàllankoore nag di jéem watee leen wala ñu leen nax naa leen réew mi dox na réew mi lu fi yàq Macky Sall ko yàq noonu wax naa leen ko ba tey mënta yàq sunum réew démb ak barki démb barkaati démb jóge fële tey daan ànd tekki wàllu xam nga ko ci waxee takk wàllu takk koy takkonteel yow ñu daal yaaru ko teg foo ñu wàllu jëme ah. foo lu wàññi jëme bu ko defee ram yéen ñi nga xam yéen a nekk ci Pastef mooy ñi nga xam ni tey dañoo xëy xëy ñëw ci Pastef ndax ñoom it am na ñoo xam ne fan nekkoon fa amatu yaakaar rek tax ñu daw ñëw ah. loolu lépp xam nañ ko ñoo xam ne leer leen ni amatu yaakaar fan ñu daw ñëw am ñoo xam ne itam bëgg réew mi dox moo tax ñu jóg waaye ñoom ci maanaam doon ñoom ñëpp rek laata naa saw bu leen ñu dente bu leen xëccoonte bu leen kii ah. yéen ñi bokk euh, Pastef te bëgg euh, gañe laa wax ndax lan bu ngeen ko defee kat laa tanaasaw fa tafsalu wa tasaba riihukum uh-huh. bu ngeen ko defee kat seen doole day dem bu leen xëccoo bu ngeen xëccoo teqale ko dana am seen biir bu teqale ko amee seen biir seen doole dem ko nekk leen benn jàppante uh-huh. ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci campagne bi ak parti bu nu mën di bokk uh-huh. wa taawanu alal birri wa taqwa lépp loolu baax dimbalee tëleen ca kenn ku ne sañ ngaa wax bu ma jotee réew mi lii bu ma bu ngeen ma majorité kenn ku ne sañ ngaa wax loolu luy lu ñaaw ak saaga ak xaste bu leen ci nangoo ànd hmm. ndax naa képp ku ngeen gis muy saaga nit ci campagne wala muy xas di ko wax ci ci campagne bu ngeen ko yóbbu ensemble et loolu la fay def saaga xaste donc la fay def Moustapha hmm. nit ki moom ni mu doon doxalee nii rek bu demee ensemble noonu lay doxale hmm. su fekkee rek maa bëgg a fal may saaga ak a su ma demee ensemble saaga xaste doo ko yox leader boo xam nag sëñ bi ba nga demee fële euh, maatam kara dong te bëggaan ngay jë yaa ngay ah boo defee sa campagne foo wax ñaar ba ñett saaga kooku sëñ bi ku ko jox ab majorité itam ray sa bopp. ray nga sa bopp. est-ce que dafa am ñoo xam ne danoo yëruwul danoo yëruwut. kenn yëru leen ba nu juddoo yëruñu leen xamuñu leen ci yar xamuñu leen ci wax ju rafet ñooñee nag ku xëy xëy dugga leen assemblée sax yaa ko sëggatumaa nga may leen majorité. Hmm. dugg assemblée rek délit bu rëy la waxumaa nga may leen majorité. campagne bi du saaga ay nit du xas ay nit wax lu ñaaw. fii la euh, Senghor daa wax laay waadu njomboor hmm. laay njomboor hmm. laay njomboor la ko daan woowee hmm. yooyu ay ay ay kii yoo xam ne mënta ñàkk ci politique lu ñaaw néew ci lu kii néew ci mais nag sëñ bi di xas ay nit ak funtoon yi ñu bari ni ne campagne yi funtoon yi mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko te ñoom Ousmane raw na li ma campagne ñoom ñoo yëpp ci programme ay programme la teg fii leen bëgg a jëmale réew mi nii la ñuy gis état bu ñëw di leen leeral di nga ba Sénégal Sénégal benn état bu sa ñëw di leeral amut leeral naa leen nii la pétrole bi doon doxe nii li doon liggéey sàcc na lii def na lii état yi fi la ñëw ba bëstal rek naxasal Macky Sall ba mu ñëwee dañuy réew mi da ko teg ci yoon ñaari weer a doxe weer Macky Sall jël lépp sànni ci àll ba di doxe nu ko neex état nag bu dul leeral rek moo dugal mu am ci guuta hmm. kon ñi nga xam ñoom dañoo bëgg di leeral lu xew ñu ne nii demee nii la demee nii la demee am nañ ci yéen yaakaar sen yaakaar suñu yaakaar yàlla mu tas ndax dañoo bëgg réew mi du yéen lañ bëgg waaye réew mi lañ bëgg. Hmm. Cheikh Moustapha foofu laay tey incha allah. waaw kay am na solo sëriñ